بسم الله الرحمن الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين والعاقبة للمتقين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki jullit yi mbokki taalibe yi gannaaw ba ñu sante suñu boroom bi nga xam ne moo ñu baaxe woon na gën déwén ñu nekkoon fii doon dundal weeru koor yàlla baaxee waat ñu ren ñu fekke ko tal ko ba di ko dundalaat ñu ngi sant borom bu nga xamante ne moo def loolu di ko ñaan mu delloo si ko ay yoon yoon te luñ ci jaamu suñu borom nangul ñu ko ñu am bu baax commission culturelle bi nga xam ne moo aju ci kër Seex Masamba te moo aju ci lañ na saxaafa bi nga xamante ne ñoo yor liggéey bi nga xam ne moo aju ci luy dundal weeru koor ak bépp yëngatu boo xamante ne dañ aju ci kër gi tey nag ñu ñëw ànd ak yéen fas yéene dundalaat weeru koor wi nga xamante ne weer wu màgg la weer tedd la ndax xam ngeen ne doomu aadama dafay soxla dafay soxla ay bernde gannaaw bi ñu gën a miin ci bernde mooy berndeeg yaram waaye tey nag weer la woo xam ne ruu yi ñoo ciy dund ñu war a berndeel suñu ruux nafaraat suñuy bind ba jaamu yàlla gi nga xamante ne moom la yàlla xaroo ak ñu mën koo taxawee na ko borom bi digle na ko yonent bi indee tey nag commission bi indil leen seen mbokk seen mbokkum taalibe ñu koy wax Cheikh Mbacke Ndaw di mudir al azhar fële ca Fatick nekk ca daara jooja jiite ko ñépp xam ko ci ay yëngatu ci waxtaanu diine waaye ci jàng ak jàngale waaye doon koo xamante ne ku suñu boroom cëral ci fànn googu la moo tax commission bi jëli ko tey ñu bëgg ànd ak yéen nafar benn tomb boo xamante ne dana aju ci suñu jaamu yàlla tomb bi leen commission bi indil tey nag mu ngi aju ci koor ak li mu làmboo ak yan njariñ moo nekk ci biir ban ikma la suñu boroom dëxañ ci biir koor ndax xam ngeen ne weer la woo xamante ne weer wu màgg la weer bu suñu boroom dëxañ ay ngëneelam waaye weer la woo xamante ne borom bi moo ko féetiwal boppam ne maa koy fayal sama bopp comme képp koo xam ne dugg nga ci biir weer woowu fas yéene ja jaamu sa borom euh, war nga boo ca paree rek nga góobe ca loo xamante ne ak ragal yàlla lay doon te mooy résultat bi nga xam ne moom lañuy xaar ci weeru koor loola nag dafay jaadu ñu xam bu baax borom bi nan la bëgge nan la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale weeram wu tedd wu nga xamante ne moom lañu moom la indil su ko defee pour bañ a guddal rek euh, damay jox euh, sëriñ bi Cheikh Mbacke Ndaw mu dugg ak ñoom ci thème bi su ko defee ñu bàyyi ko xel bu baax suñu paree képp koo xam ne am nga ay laaj yoo xam ne war na ca rot incha allah bu ko waxtu yu mayee daañ ci def suñu kéemtalaay kàttan su ko defee pour ñu ma bañ a guddal rek Oustaz Cheikh Mbacké bismillah bismillahi arrahmani arrahim subhana alqail fi muhkami tanzilih faman shahida minkum ash-shahra falyasumhu ومن كان مريدا أو على سفر فعدة من أيام أخر والصلاة والسلام على خير من صام وقام واعتكف القائل عليك بالصوم فإنه لا عدل له وجزى الله عن شيخنا وحبيبنا وشيخنا الشيخ القديم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 ixwat al aisa assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ñoo ngi sant borom bi subhaanahu wa taala te julli ci yonentam bi alayhi salaatu wa salaam di yëkkati ay kàddu yu nuyoo ay kàddu ziyaar ay kàddu ndokkeel ci bis bu tedd bi ñu nekk muy bisu àjjuma waaye ci barab bu màgg bi ñu nekk waaye ci weer wu tedd wu rëy wi nekk di jiital ci nuyu ak ziyaar yi suñu kilifa yi tàmbale ko sëñ Sidil Moxtaar sëñ Cheikh Muntaxal Bachir di ñaan yàlla mu yàgg fi lool te ànd ak wér ak mboolem njabootu Xadimatul gi yépp nuyoo bu ñu tolle ak ziyaar bu ñu tolle la jëmale ci suñu kilifa Cheikh Moustapha Massamba ak mboolem njabootu Cheikh Massamba gi yépp waaye di ko jëmale ci mbooleem ñi ngaan ko fondation sëriñ sëriñ Masamba yi te jiitu ji sëriñ Cheikh Mahmoudan ak ñim ko àddat yépp waaye di jagleel ziar ak ndokkeel bu baax ñi nga xam ni ñooy taxawee liggéey bu bi di ci liggéeyal seen maam di ci liggéey lislaam muy lajna saxaafiya te sëriñ Abdul Qadir jiite ko ànd ko sëriñ Mudu May Cheikh Murtada sëriñ Cheikh ak mboolem kilifa yu ñu ko àndat yépp di nuyu baax kilifa yi nekk jitaay bi di ci ràññee suñu sëriñ suñu kilifa sëriñ jiiri abdul xaadir mahmudan ak mboolem mbokk yi nekk ci wetam yépp xanaa jéem rek ni ko oustaz Aboubacar Ndaw waxee sànq ci li nga xam ne moom lañuy mbokk yi sas mu nekk ndigal ñu war koo jëfe di ab taalibe bu war a jëfe ndigal rek ci kanamu ay kilifaam rawat nag ci tomm bu rëy bi nga xam ni moom la ñu jagleel ñu war cee jàngat boo xam ni mën nañoo wax ne xëy na dañ ci lot lool ci jooxe ko dëgg-dëgg ni mu waxe ni mu ware wala leeral ko ni nga xam ne noonu lañ ko bëggee ndax tomm bu xóot la bu laaj peeg xeetu xam-xam yu bari ndax day jaamu yàlla bu rëy te mooy aqiqatu sawm wa falsafatuha maanaam lan mooy dëgg-dëgg koor ak lan mooy déggin wi nga xam ni jot na ñu am ko ci koor loolu yaakaar na ku dégg tam bi da nga yëg ne lu xóot la waaye lu laajit ay waajtaay yu yaatu la waaye ñu rafet njot rek gannaaw ba suñu kilifa ñooñu ko sant ci ñu ngi nekk ngi bi xëy na buñ ci nab nabee lu ca manqué danañ ko mottali lu ci leerut danañ ko leeral lu ci jot itam danañ ko jot jéem a jotal ñoom wante ñu jéem rek ci suñu xam-xam bu gàtt jéem a tënk tomb boobu ci ñetti tomb mooy jéem a xamle koor ci niñ ko xamee woon ci niñ ko baaxoo déggee maanaam lan mooy koor ci luxa ak ci sariya suñ ci paree nag ñu doog mu nekk loolu mooy nekk laytaayu lan moo ñuy dugal ci dëgg-dëgg lan mooy falsafatul sawm koor nan lañ ko war a dégg ak lan mooy dëgg-dëgg koor suñ ca jeexalee su fekkee dégg nañ koor ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngalee suñu mag ñu baax ñu doon ko dunde ni kon bu koor gi jeexee lan moo war a nekk lu mu bàyyi ci ñun lu mu bàyyi ci jëmm ju nekk lu mu bàyyi ci sustable lu mu ci jëfin wi ak doxin wi loola nag buñ ci paree dañ koy ndar keppe sëriñ tubaa mi déggoon koor moom nan la ko jàppee ak na ko na ku dunde ak yan la ci bàyyi ci ay joxañ yoo xam ne nii waxoon nañu dëgg-dëgg lan mooy koor démb waaye mbokk yi ngir bañ a guddal koor moom ci dañuy wax rek mooy imsaak mooy ku jàpp dara téye dara ŋànk dara ni ko benn yónent doon waxe ne inni nasartu lirrahmani sawma mooy tey dama jàpp wante bu dee ci sariya nag dalay wax ne koor moom moy al imsaaku an kullil muftiraat bi niyati taabud fi samanin muayyan wa bi ayhatin maaluma min tuluwil fajri ila xurubi shams koor daal mooy ab jullit boo xamante ni day jàpp woor ngir jëmm yàlla subhaanahu wa am ci pas-pas boobu ak yéen a jooju def ko muy jaamu yàlla waaye dafa ko ci jamono ju ñoo xam ne nii ju ñu ràññee la te mooy wooru koor wala benn xeet ci xeeti woor yi waaye dafa ko ci anam bi nga xam ne noonu lañ ko jàngale tàmbalee ko bu fajar di xar ba baa jant di so ndax moom la yàlla dina wa atimu siyaama ila layl koor moomu nag ni ko fuqaa yi mooy farata la farata la ci jëmm ji nekk képp ko ashhadu an laa ilaaha illa wa ashhadu anna di mu kàllaf te amuloo ngant luy tee nga woor wala at noo koor koor moomu farata la ci yow farata na nit ñu ko sëriñ Tubaa jàngale ci julli ak mboolem yi ci aju ci yi nga xam ne mooy ponk lislaam dafay wax ne ku ko bañ a def ñaar rek moo ci am mooy ku weddi na farata jooju amut ku weddi na julli amut wala koor amut wala natt asaka amut wala dem Màkka amut Sëriñ Tuubaa nee na kooku mu yéefar la bu ñu koy àttee dañu koy àttee comme ni ñuy àttee yéefar mooy jël jaasi dagg bat morot keneen ki nag mooy ki nga xam ne nii nee na waaw man ab jullit laa d'accord naa ne koor am na asaka am na wala julli am na waaye mu lànq benn ci yooyu lànk bañ koo def sëriñ Tuubaa nee na kooku dañ koy négganiku di ko digal di ko lay bi rek mu tuub jëfe jaamu yàlla googu ba waxtu wa des tuuti su lànkee nag bañ a dellu dañu koy dugal ci am pax di ko sënn ci ay xeer ba mu dee ci pax ma ñi génne ko doo ko sang doo ko sang doo ko jullee li ci des ñu bayee ko borom kon day mel ni ñaari at yooyu rek moo am ci ñàkk jëfe ndigalal yàlla yi nga xam ne mooy farata lu mel ni koor wala julli wala na asak wala dem màkka bu la ca war te amoo ngant te nga lànk bañ koo def koor moom mu nag ni ma ko juñe sànq mas na koo tënk ci ay xeeti koor am na ci boo xam ni farata la comme kooru weeru koor wu ñu nekk wala nga def luy tax nga war a kafaara am na ci yoo xam ne sunna la lu mel ni nga woor weeru koor yi ba mu jeex ñu ne la wooral juróom benn fan ci weeru koor yuy toftal ja am na ci yoo xam ne dañ koo sopp lu mel ni weer wu nekk nga woor ca ñetti fan walla yi ngay gunge walla yi ngay gàttanoo wante nag léeg-léeg sax koor nag ñëw ci araam ci ab jullit su fekkee am na ay ngànt yu ko dal lu mel ni jigéen ju baax wala ju baax te muy di woor boobaa mën na nekk lu xaraam. waaye xëy na yooyu yëpp tax ñoo jóg bi ñu tax a jóg dëgg-dëgg mooy biñ junj ci tam bi te mooy weeru koor wii ñu nekk lan mooy dëgg-dëgg koor ak lan mooy déggin wi nga xam ne nii moom lañ ci war a amee comme ab jullit loolu nag day mel ni bu ñu demee ci alxuraan sunu borom subhaanahu wa taala firndal nañu koor moomu di weeru koor mi ñuy waxtaane moom li njëkk mooy jullit bi yëg ne farata la ci moom te loolu siiw na ci aay boo xam ne waxtu wu nekk ñu dégg ko suñu nopp waaye ba léegi day mel ni dégg gi des na te mooy yaa ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum siyaam kama kutiba ala alladina min qablikum laallakum tattaqun yéen ñépp ñi nga xam nee ngeen ay jullit ngeen gëm ngeen yàlla subhaanahu wa taala yàlla farataal na ci yéen koor comme ni mu ko farataal na ci jiitoon ndax ngeen amee ci ragal yàlla subhaanahu wa waaye waxaat ci beneen aaya ne képp ku yàlla subhaanahu wa baaxe ba weeru koor fekk la fi la gën a rëy ci li ngay sant yàlla delloo ko yàlla njukkal mooy woor weeru koor wi te mooy fa man shahida minkum shahra falyasum wa man kaana maridan aw ala safar fa iddatun min ayaamin uxar képp ku yàlla baaxe mu fekk la fi taamoo ngànt nga woor ko soo amee na nañ ne la wóor na wàccu la ngànt la teewoon nga def ko saabu la ngànt la wàcce da nga war a fay lu toll ni la nga ca dogoon bu ñëwee ci njàngaleem yonent bi sallallahu alayhi wa sallam it yuy wane ne ab jullit da ko war a taxaw yu weer wi bokk na ci hadis bu siiw bon naan buniyal islaam ala xamsin shahadatu an la ilaha illa wa anna muhammad rasulullah wa iqaami salaat wa itaai zakat wa sawmu ramadan wa hajjil bayt mu ne gone ne kon koor benn ponk la ci ponk lislaam yoo xam ni boo ko dindee rek mooy nërmel nga li nga xam ne mooy lislaam ci ta yéen salaatam di waxaan ne kullu amal ibnu aadam yudaaf min asarati yudaaf al asanatu bi asari amsaaliha illa sab'a mi'ati di'fin ila sawmu fa innahu lii wa ana ajzi bih nee moom yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñu borom mooy wax ne bépp jëf ju doomu aadama jëf benn jëf jum ca ci lu rafet danañ ko fulanil ba muy fukk yoon mën naa àgg sax ba muy juróom-ñaar téeméer yoon wala lu ko ëpp ci ay fulandi mu ne waaye nag bu dee koor moom yàlla daf koy fay bi xayri xisaab mooy moom yàlla moo koy fayal boppam te bu koy fay amul fum ko yemale ndax yàlla day wax ne sama jaam bi yadawu shahwatuhu wa taamuhu min ajli lépp li nga xam ne moo nekkoon bànneexam ak lépp li nga xam ne moo nekkoon bëgg-bëggam ci lekk ak naan da koo bay ngir sama jëmm sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu di ñu ba tey koor bunt la boo xam ne kuy wët yàlla kuy wët ngërëmal yàlla mooy bunt bi ci gën a gaaw ama siyaamu fa hiya afdalu ma talabta wa niama mu ne koor daal mooy li ci lépp looy sàkkoo ngërëmal yàlla subhaanahu wa ak xéewal yàlla subhaanahu wa mbokk yaakaar naa laytaay bii ñu laytaayal ci jéem a xam le sariya ni mu waxee ne koor ak junj bi mu ko jox mooy war nañoo joxañ na kon na aw déggin wu xóot wu yaatu wu ñuy xaar ci lan mooy koor loolu nag bu ñu ko bëggee junj dañuy wax ne kon koor dañ koy jàppe ab école wala ab camp militaire sax wala sax centre formation boo xam ne buñ ci dugalee jëmm jëmm ja bu génnee day nekk dëgg-dëgg jullit buñ ci digalee doomu aadama bu buñ génnee day nekk dëgg-dëgg doomu aadama bi soxla woo biñ soxla ci kaw suuf waaye buñ ci génnee ki nga xam ne mooy ab citoyen suñu paree ci moom day nekk koo xam nii li ñu ko soxlaa ci aw askanam dana ko mën a taxaw ci fànn yépp waaye ñu ne koor moom it saa bu ci nit ki génnee day doon loo xam ne dafa war a defar jikkoom waaye dafa war a defar jëmmam waaye dund la boo xamee day dundal ruuxu doomu aadama ba pare it doomu aadama bu ci génnee dafa war a am li nga xam ne mooy saadatu daarayn mooy texe ci kaw suuf te bu ëllëgee nga am ngërëmal yàlla subhaanahu wa taala waaye ci tënk kon mën nañu wax ne koor day ñëw ngir dafa nit ku nekk waaye day ñëw ngir dafa suste loolu nag moo tax suñu borom subhaanahu wa mel ni lim ñu waxoon ci aaya bi jiitu woon ne kama kutiba ala alladina min qablikum yàlla nee na mbooleem xeet wu leen fi mës a jiitu yàlla farataal loon na ci ñoom koor xëy na kay dañoo bokkut koor nu ñu woore am ñoo xam ne daa woor ñeenti ñetti fan am ñuy woor ñeent fukki fan am ma jëmmi woor aw weeru koor xeetu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam la ko yàlla jagleel waaye wax gi mu wax ne nag farataal na ko ci mboolem xeet yu fi mës a jaar loolu dafay wane kon doomu aadama pour mu mel ni yàlla bëgg fokk mu jël jaamu yàlla gu ñu tudde koor ndax su fekkoon ne am na askan woo ko mën a ñàkk wala xeet woo ko mën a ñàkk kon dana am xeet woo xam yàlla mustafaratal ci ñoom waaye day mel ni ba yàlla wàccee sunu aadama ba ci sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonent bi mos a ñëw rek am nga xeetu koor boo mos a indaaleel saw sa njaboot kon jumtukaay la bu ñuy defaroo ba mën a àgg ci yàlla subhaanahu wa waaye mbokk mi bu ñu déglee ba tey wax yàlla bi day mel ni buy wax day wax ak ab jullit kon ko woote bi woote jullit bu nekk la képp koo xam ne nee nga ab jullit nga woote boobu dal na sa kaw te amul lenn loo mën a faye woote boobu lu du wuy ji woote boobu ndax yàlla yaa ayuha alladina amanu la wax te léeg-léeg ñu ci alquran mu jëm ne ko yaa ayuha naas yéen nit ñi kon bu waxee yaa ayuha alladina am na ñu waxut ñu wax kon moo ñi nga xam ne gëm nañ ne wax nañ ten la min ashhadu an laa ilaaha illallaah ashhadu anna muhammad rasulullah kooke nag ku jël engagement boobu na la wóor ne jaamu yàlla gi ñuy wax koor li la ca war mooy jéem koo jëfe ni la ko borom bi subhaanahu wa taala digale wante jéem a moyt ni ko lépp lu koy gàkkal ak lu nga xam dana ko tilimal waaye nga yëg ne it jooxe gi ngay jooxewaat jaamu yàlla googu sant yàlla la ci yow ndax ni ko suñ Babacar bu ñu sànq ku nekk xam na ne heure bi daaw toogoon nañ fi doon dundal lu lu mel am na ñoo xam ne yàlla dogal na ren fekkaatu leen fi mooy wujji nañ seen boroom yàlla yàlla yërëm leen am na ñoo xam ne même bu yàlla dogalee ñi leen fekk tey at nuñ koor ña nga ca lali hôpitaux yi wala ña nga seen kër tëdd wala sax même bu dee ñi ngi dox ànd ak ñun wératuñ ngir wéru am koor kon ku yàlla baaxe nag ba yooyu yëpp nga mucc yi yàlla baax la ba nga fekke ko yàlla baaxa la nga am wér yàlla baaxa la nga am tal amul lenn loo mën a sant yàlla lu gën a rëy woor li nga xam ne mooy weeru koor te ma bañ a wëtal sa bopp benn ngànt boo xam ne yaa koy karee sa bopp buy dox tax wu jaamu yàlla boobu moo tax suñu borom ne fa man shahida minkum shahr képp ku ko képp ku ko teewe rek képp ku ko teewe na nga ko woor ku yàlla dogal nga teewe ko nag moo tax caaye bu ji mu ne fa koo xam ne am nga gàtt nag fa iddatun min ayamin uxar kon day mel ni waaye dafa dal ci ab jullit te du la wàcc li fekk sunu borom subhanahu moo la ko wàcc mu mel ni koor moom it ci ñaari aay yi jàng yëpp ni may wax a sànq dañ koy jàng ci lu bari muy jàll wante war nañ ci taxaw seetantal léeg-léeg ndax kutiba alaykum siyaam kama kutiba ala alladina min qablikum mu mel dañ ne ko yàlla lu tax mu ne laallakum tattaqun mooy bu ngeen ci génnee ngeen jële ci ak ragal yàlla subhaanahu wa taala kon day mel li lu ñu dugal ci weeru koor ak liñ ci génn ak liñ ci yëngutu yépp mooy suñu paree bu koor gi paree bañ génn ci benn résultat dong lañ ci war a génne te mooy ñi génn ci ak ragal yàlla saa bu koor gi paree saa bu koor gi jeexee te nag amuñ ci ragal yàlla mooy lañ doon def tuddoon koor ndax yàlla mi ñu digal koor moom moo wax ne koor gi liñ ciy bëgg ak li tax mu farataal ko ci ñun mooy ñi ci ak yàlla subhaanahu wa kon day li ñu jàngataat yépp ci kanam ci bind yi nga xam ne moo ci topp mooy lan moo ñuy dimbale ak yan mooy support yi ñu mën a jël yoo xam ne danañu gunge ba bu koor gi jàllee ñu am ragal yàlla subhanahu wa taala te loolu nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam leeral ko ci hadis bu wax na man saama ramadaana wa xaamahu imaanan wa ihtisaaban xufira lahu ma taqaddama min zanbi yonent sallallahu nee na ku taxawee weeru koor ku woor weeru koor ba pare taxawee ko ànd na ngëm yàlla ak sellal jéggal nañ ko ay bàkkaaram yi jiitu woon yëpp nga gis ne kon yéen sax daje teg ay condition waxut yonent waxut ku woor rek waaye dana ku woor ba pare taxawal taxawal taxawal weeru koor taxawal weeru koor mooy nga woor bëccëg ya dundal guddi ya da ngay woor bëccëg yi lépp liñ ci santaane nga def ko guddi yi nga dundal ko ci xeeti naafil ak xeeti jàng alxuraan lépp lu nga xam ne laaj na ko ba pare nag mu ànd ak ngëm yàlla gu wér goo xam ne doo ko raxas dara ba pare mu ànd ak sellal goo xam ne da ko koy ngir jëm yàlla subhanahu wa taala kon mbokk yi yëpp bu ñu xoolee dañuy gis ne kon déggin bu ñu war a dégg weeru koor du lu woyof ndax yónent salaatu bi ñu ko sant mooñ ci tegalaat ay conditions yooyu tax bu ñu paree ñi mën ci amee ragal yàlla subhanahu wa taala loolu nag moo tax mbokk yi loolu ñu dafa ju ci ay tomb yoo xam ne jàpp nañ ne buñ ci jàppee liggéey ci suñu bopp liggéeyal ci suñu bopp kenn ku nekk nga laaj sa xel ak sa xol lii nekk sa kanam lan nga ci war a jële ay comme ay bind yoo xam ne dañ la dimbale ba bu koor bi jàllee nga am ci ragal yàlla subhanahu wa taala loolu ba njëkk moo ñu yëg ne koor ko ñëw ngir defar suñu bakkan tàggat suñu bakkan waaye yar suñu jikko ndax yonente bi sallallahu alayhi wa kat moo ñu waxoon ne koor gi saa buy dugg si rek mooy yàlla tënk na seytaane kon kenn bu mu tooñu seytaane seytaane moo ma tax nangam wala moo ma tey def nangam seytaane moom fiir na boor moom la sëñ Tuubaa di wax ne wa saafidan kullu seytaanan bi ma maa maahu wa mudxifan li sawil ihsaani bi safadi sëñ Tuubaa ne dañuy tënk seytaane ak ñëpp ñi nga xam ne ñoo njabootu seytaane ba nga xam ne du ñu mën a dox diggante jaamu yàlla ci jaamu yàlla kon lan moo des mooy sa bakkan mooy nga jihaada sa bakkan nga xeexal sa bakkan not lépp luy sa bànneex ba mën a def ndigalal yàlla subhaanahu wa loolu moo tax loolu nag boo ci àggee ci yar sa bakkan boobu mooy tax nga mën a raxas lépp li nga xam ne mooy amoon jikko ju ñaaw nga mën koo dindi ci sa xol ak sa xel ba mën cee ba mën cee jëmbat ay makaarimul axlaaq moo tax yónent bi sallallahu alayhi wa sallam doon wax ne képp koo xam ne woor nga na wóor ne soo munta bàyyi caay-caay ak jikko ju ñaaw ak jikko ju bon la ngay def yaa ko tudde woor waaye tuddugul woor moom la na wax naan man la man lam yada qawla zuuri wal amalu bi fa laysa lillaahi haaja fi an yada taamuhu wa sharaabuhu yonent nee na ku munta bàyyi wax ju ñaaw ak jëf ju ñaaw yàlla amul soxla ci ñàkk a lekk ngay ñàkk lekk wala ñàkk naan ngay ñàkk naan loolu mooy war na kon li ngay def di ñàkk lekk wala ñàkk naan loolu taxul ñi naan koor balay tudd koor day fekk nga mën a bàyyi lépp loo xam ne nii mooy wax ji ñaaw walla jëf ji ñaaw moom la sëñ Tuubaa di wax ne fa rubba saa'imin ma al jamaa laysa lahu fii siwal majaa sëñ Tuubaa nee na bari na kuy woor ànd ak mbooloo mi te koor ga ngay woor amoo ci lu ab xiif waliyaasu billaah naa ndax nee na fa sawmu an yasuuma kullu udwin an kullu ma yuhdil fata li sëñ Tuubaa nee na koor dëgg-dëgg koor mooy nit ku mu wooree mu wooral cëram yépp ci lépp laa xabat nii dana bijji lu yàq koor gi wala lu koy ayibal wala lu koy tirimal wala lu koy gàkkal moo tax sëñ Tuubaa tënkal la ko ci ne amsik ani nasari lil xaraami wal masyi wa sami ma al wa kullu fikratin radiyatin kama amsakta an aklin wa shurbin ulima sëñ Tuubaa nee na su fekkee nee nga da ngaa woor da ngay fexe ba wooral sa bët yi doo ci xool mukk lu xaram loo ci xool lu nekk ngërëmal yàlla subhaanahu wa dangay la fexe ba wooral sa tànk yi doo ci dox mukk lu xaram da ngay woo dox fexe ba wooral sa nopp yi doo ci diglu mukk lu xaram da fexe ba wooral sa làmmiñ wi doo ci diglu mukk lu xaram waaye dem ba àgg wa kullu fikratin waxuma la cër yi sax waaye li ngay xalaat ci sa xol bi sax nee na na fexe ba mu nekk lu dëppoo ngërëm yàlla waaye bu ci xalaat mukk lu ñaaw sëriñ bi jeexal na ni nga góorloo ci bay lekk ak bay naan lu toll noonu wala lu ëpp loolu la nga war a góorgóorloo ci yi ndax mboolem cër yooyu bu ci nekk mën ngaa def ak jaamu yàlla ba pare mooy yàlla gooy mooy yàlla ci benn ci cër yooyu yàqaat ko moo xam da ngaa xool lu moo xam da ngaa woor ba ngoon jot sax nga fexe trian wala noo ko mën a lijjante ba am benn tàndarma boo xam ne na ko amee léwut nga lekk doge ko la nga defoon yépp yàq na ko wala sax ci bëccëg kooru koor gi yaa ngi wéet di xalaat xalaat yu bon ci diggante ay soxna wala diggante jëm wala diggante nangam su boobaa day mel la ngay def yaa ko tudde koor waaye du koor ndax inna allaha tayyibun la yaqbul illa tayyib sëriñ Tuubaa radiyallahu ci njaare ci bi mu nekkee ci Ceyeen mos naa wax mag ñi ne leen li ko tàmbalee Jolof ba Saalum dëj foofu tollu danga gis jëmm ju lu baax waaye am lu baax tëkku ticc Sëñ Tuubaa daan laaj mag ñi ne leen ndax xam ngeen lu tax ñu ne ko dee leen Mbàkke mu ne leen yàlla subhaanahu wa taala dafa bind lu baax bind lu bon dal wax lu baax ne ko yàlla man mu lu baax lu bon mii mënumaa ànd ak moom bu ma booleeg moom lu bon na yàlla lu bon lu baax mii bokkuñ ay jibluwaay bi ñu boole mënuñu ànd yàlla ne leen man mi leen bind de xam naa ne mënu leen a ànd du ma leen boole nee na doomu aadama nag ñëw moom bëgg a boole lu baax ak lu bon ba bëgg am lu baax luy misaal bi misaal bi mooy ñun ñëpp xam ngeen ne su weeru koor ñëwee ñëpp ñu ngi nër nëri amatuñ jàmm koo gis mu ne damaa woor boo muy dund koo gis mi ngi yore jukkub alxuraan koo gis mi ngi yore jikkub xasida koo gis mi ngi yore ak kurusam boo muy dul koo gis mi ngi ci mbedd mi di maye café wala muy joxe mburu wala muy joxe ndogu naam ku nekk xam na loolu lépp baax na waaye nag saa boo ci boolee lu ko gàkkal lu mu nir lu mu tuut tuuti lépp loo defoon ci lu baax man na ko yàq mooy danañ ñëwaat mu gën a leer waaye sa benn tomb benn lëmmiñ benn kàddu ci saw lëmmiñ mën naa wax nit luy tax sa koor yàqu yow te benn xalaat bu bon mën naa tax la nga defoon ci koor yépp ñu effacé ko te loolu yonente salaam misaal nañ ñu ko ci hadis joxan benn misaal ci iñaan mu ne mbaa xam nga ne iñaan day lekk ay jëf yu baax comme ni sawara di lekk matt sawara matt bu ñu àndee ab diir rek sawara yi day mujj def matt mi ab dóom nee na kiñaan it muy benn jikko ci jikko yu bon yi saa boo defee jëf ju baax soo fa fekkee kiñaan kiñaan da koy lakk di ko yàq ba benn jëf ju baax nekkatu fa mboolem jikk yu bon yépp noonu la mel moo tax wéradi yi nga xam ne moom lañuy ñuy jàmmat ci suñu yaram léeg-léeg te ku mu dal ci sa bopp wala mu dal ci sa njaboot doo am jàmm li fekk saafara woo ko léeg-léeg mu nekk bopp bi métti léeg-léeg mu nekk biir bi métti léeg-léeg nit ki am tension wala mu am jabar wala mu am nangam itteem yépp mooy nu muy def ba saafara yooyu moo xam dafa dal ci njabootam moo xam dafa dal ci jëmmi boppam te moo ne léeg-léeg day dañuy ànd ak feebar bu gën a rëy feebaru cancer wala feebaru biir bi métti wala feebaru xol bi métti wala feebaru jabet wala feebaru tension te ñu yëg ne sax am nañ feebar boobu wala ñu ko du ñu jaral ñu jóg di ko feji te feebar bu moo gën a bon te mooy feebaru jikk yu bon yuy nekk ci xol feebaru rëy feebaru iñaan feebaru soxor feebaru jëw feebaru rambaaj feebaru wax lu amut feebaru sàcc yooyu yëpp ay feebar la yoo xam ne ci xol lay nekk te fii ak gillit bi ko mooy lépp lu mu def ci jaamu yàlla loola mën na ko yàqaat moo tax mbokk yi taxaw boobu yi taxaw bu am solo kon yëg ne koor dafa ñëw ngir yar doomu aadama bi ba mu defaraat jikkoom ba mel ni yàlla subhaanahu wa bëgg ab jàmmel ni waaye beneen bi it bokk na ci taxawaayu koor mooy jaam bi tàggat boppam ci xeeti jaamu yàlla yi ko yàlla subhaanahu wa sant moo tax waxoon naa ci njëlbéen ne kon daa mel ni koor ab école la boo xam ne dafay ñëw ngir tàggat ñu ci jaamu yàlla subhaanahu wa xeet jaamu yàlla yépp day mel ni yàlla da ko dugalaat da koo dëxëñaat ci biir weeru koor te loolu it am na ay junj ay ahadis ay alxuraan ay aaya yu bari yoo xam ne day mel ni mboolem xeetu jaamu yàlla booy booy booy la ci yàlla di digal rek mel la koy digal ci biir weeru koor te loolu bu la koy digal mooy daa bëgg nga tàggatu ci tàmm ko ba bu koor gi jeexee ba bàyyi déwén di dana fekk na say cër làgg na ci moom la sëñ Tuubaa doon wax naan zuxtu xalaawata al ibaadatu falaa amalu minha fal ana wa afala sëñ Tuubaa dama damaa mos neexatu jaamu yàlla moo tax jaamu yàlla dafa far neex ci man ba yëgatuma coono ab jaamu yàlla kon nag loolu lay jàngal ab jaam mooy jaamu yàlla gi day mujj neex ci ay moom ba ay cëram làgg ci ba du ko mën a bàyyeeti même bu koor gi jeexee loolu moo tax boroom xam-xam dañuy wax ne kuunu rabbaaniyiina wala takunu ramadaaniyiina mooy da nga nekk ñoo xam ne danga nga ni takkook seen borom waaye bu leen nekk kuy takku weeru koor kuy takku weeru koor mooy koo xam ne sa jëf ju baax ji yëpp koor gi la boole ak moom waaye buñ ne weer ne tey suba la koor yi day mel dee jigéen seen ne kaala ga bu dee ku doon jàng alxuraan kaamil ba tegaat na ko ku daan dem jàkk ba muy du gis ja ku daan naafila du naafilaati su boobaa déggudul lan mooy koor dëgg-dëgg ndax koor dafa ñëwoon ngir yooyu sax ñun ñi làgg ci ba bu koor gi jeexee ñu mën cee continuer loolu ba ci njëkk mooy alxuraan làggi ci alquran ci jàng alquran ak ci jëfe ak alquran ak ci dund alquran sunu borom subhaanahu wa taala bi mu ñuy wax weeru koor daf ñoo joxe na bàyyi leen xol ne weer wi nga nekk mooy weeru alquran shahru ramadan alladi unzila fi alquran hudan linnaasi wa bayinatin min alhuda nee na weeru koor mooy weeru alquran wante yi mu ca ba na alquran ji nag ma lay wax hudan linnaas dafa ñëw ngir wan leen ak njub wa bayinaat da leen leeralal yoon wi nga xam ne bi moom ngeen war a jaar kon suñu borom mi ngi ñuy wax ne kon weeru koor kat bu ñëwee war nañ cee bàyyi xel ñaar mooy jéem nafaraat alquran di ko jàng lu bëree bari di ko nafar lu bëree bari waaye nafar gi nag ak jàng alquran gi li mu baax baax baax baax mooy ñu yëg ne alquran bi lettre la bu ñu yàlla subhanahu wa taala bind te daa am joxañ bu mu ñuy joxañ boo xam ne mooy njariñu jàng alxuraan bi bu dul loolu dëgg-dëgg alxuraan li mu bëri bëri barke nga xam ne yonent salaam nee na bépp araf boo jàng dañ la jàng bindal fukki tiyaaba mën a alif laam mim alif araf la laam araf la mim araf la waaye dëgg-dëgg mbóot ma nag mooy jëfe ko Cheikh Ibrahima Fall Baal Mouridine naa wax ne mos naa laaj mag ñi alxuraan fan la commencé ak fan la yem mag ñi ne ko mi ngi commencé alif laam mim ba minal jinnati mu ne leen loolu gudd na lool alquran nee na mi ngi commencé alif lam mim zalika alkitab la rayba fii hudan nee na alquran foofu la commencé foofu la yem alquran mi commencé alif lam mim la rayba fii hudan hudan jooju fa la commencé fa yem mu ne lu tax mu ne ndax boo commencé foofu baa ngay jeexal téere bi lim lay waxaat lépp mooy dooy def ba am ak njub di la waxaat gaa yi jaaroon ba am ak njub la leen yàlla subhaanahu wa taala faye di la wax gaa yi yàcc aw yoon ba ñàkk ak njub leneen yàlla subhaanahu wa taala faye kon suñu borom subhaanahu wa taala mi ngi ñuy joxe ne téere weer wii di weeru alquran ñi war cee nafaraat alquran buñ ci génnee war nañoo amee ci biir ay weer wi li nga xam ne muy ak njub te mooy teg suñu tànk ci siraatal mustaqim loolu moo tax sëñ Tuubaa doon wax naan lishad bi axsi kitaabillahi fii ka huna ila irtihaaliya yowma sabti wal ahad yow weeru koor ko yow weeru koor seereel ne ma alquran jii lay jël naa ko tey ci biir weeru koor te du ma tàqale moom ba baa ma lay wuy si ci samedi bi mujj am ci kaw suuf ak dimanche bi mujj am ci kaw suuf ila taxaale yow ma sabti wal ahadi du ma taq taqale ko alquran kon loolu daf ñuy jàngal ne kon alquran bi du weeru koor wi rek la ñuy taqoog moom waaye bu weeru koor yu jeex dañu war doon suñu dund ba mu jeex mu doon loo xam ne dañ ko war a jàng lu bari waaye dañ ko war a jéem a xam li nekk ci biir te mooy nafar ko waaye dañ ko war a jéem a dund ndax yonent sallallahu alayhi wasallam nee na te moom la yàlla wàcce woon ci moom alxuraan kon moo war a gën a dégg ñëpp alxuraan waaye teewul yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na weer wu nekk jibril dana wàcc nafaraat ak man alxuraan weeru koor wu nekk nee na ba weeru koor wi ma mujj dund ci ko suuf jibril wàcc na ñaari yoon nafaraat ak man ci alxuraan waaw gannaaw ba yonent bi sallallahu alayhi wasallam wàcc ci moom ci alxuraan te jibril di wàcc ci moom di ak moom as sukul yonent am waxtu woo xam ne nii waxtu wu nekk da nga koy wéttali ko sa borom ci alxuraan te bañ a yem rek jàng waaye xam ko waaye jëfe ko wante lépp li nga xam ne moom la alxuraan làmboo ci ay ndigal nga sax ca lépp li nga xam ne moom la làmboo ci ay tere nga bàyyi ko waaye nekk ci li nga xam ne mooy jikko yi nga xam ne moom mooy jikko alxuraan ndax soxna Aïcha radiyallahu anhu bañ ko laajee woon lan mooy jikko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu gàtt la tontoon te mooy kaana xuluqul lan day mel ne jullit bu nekk foofu la war a nekk jullit bu nekk buñ la laajoo lan mooy sa jikko tontu mooy sama jikko mooy alxuraan ci jéem a jëfe lépp lu muy digle jéem a tere lépp lu muy bàyyi lépp luy ak mbaax ma takki sama sama tànk waaye alxuraan weeru koor noonu mu ñuy bàyyiloo xel ci alxuraan noonu la ñuy bàyyiloo xel ci beneen jaamu yàlla goo dañ ko war a tàmm nga xam ne koor dong waru ñëw boole ak moom dëgg la koor mën naa nekk école bi nga xam ne mooñ ci tàggat waaye bu koor gi jeexee dafa war a des ci ñun te loolu mooy naafila mooy xiyaamu lay di taxawal ay guddi di taxaw ay guddi di ko dundal ndax mag ñi dañ daa wax ay ndab maanaam daa am li nga yoo xam ni boo bëggee dab góor njaale ya mu doon saw fas woo xam koy war am na loo xam ne ni su fekkee ne pare woo pour war fas woowu ne la wóor ne koo daboon tim dana raw te ñi la dab doole moo tax dab mukk te loola bokk na ca jàng alquran mii ma doon wax bokk na ca ji joxe ndab te mooy berde waaye bokk na ci naafila naafila ay ndab la yoo xam ne moom la mag ñi doon war ngir mën a raw ñi nga xamee ni mooy seen morom te loolu yonent bi sallallahu alayhi wa la ko yàlla ñu ko wax yàlla nee na ko qumi layla ila xalila nisfahu aw unqus minhu xalila mooy dangay ngay jóg guddi gi lépp ba mu def tuuti wala boog boo ko mënul nga jóg genn wàll ga wala boog nga xaaj ko ñett xaaj benn xaaj ba kon mënta ñàkk ji bu demee ba nga xam ne mënoo la yónent la sa manoon wala mënoo la saxaaba ya manoon wala mënoo la maññe ya manoon yàlla nee na ba léegi wàcc la faqrahu ma tayassara min alquran mooy nee na moom kenn du ko def mooy fokk am na ma tayassara waaye li gën a gàtt li gën a néew mooy jullit boo xam ne dafa julli gee rek sataaw yi dara dina jeexal naa ci subaati loolu moom bokk na ci yi nga xam ne koo ko def ab jullit nga nag waaye fa taxaw nga taxaw rek mooy rëwoo kenn te koo rawante bis dinañu mu dab la kon li ñu rawante ci naafile la nekk te loolu sunu borom subhaanahu wa taala joxañ na ci aay yu bari ci alquran tatajaafa junubuhum anil madaaji yad'awna rabbahum wa tam'an wa xawfan ba jeexal ne fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kaanu ya'malun ñi nga xam ne dañuy sax ci naafila la yàlla subhaanahu wa taala dencal ci ay xéewal loolu nëpp mënu koo mësu koo dégg waaye bëgg mësu koo gis waaye xel mënu koo xalaat loolee su fekkee ne amul lenn lu ko yàlla digle digee ci lu toll noonu ci tiyaab wala ay ngëneel ci lu loo xam ne mooy naafi la loolu moo tax nag mbokk yi bu ñëwee ci weeru koor kon war nañoo yëg ne naafila ji ñuy naafila du folkoloor rek wala xummeen rek wala jàkka fees na rek wala fokk ma naafila wala jàpp na naafila moom boo naafilu sa koor baaxut maanaam jëmmi naafila ak koor jotewuñ dara nit ki mënoon na woor ba pare dalu naafila te doy kooram baax na na waaye kon lan mooy yow naafila kon naafila gi dañ la ciy tàggat ba nga xam ni même bu koor gi jeexee naafila googu day des ci yow te soxna Aïcha radiyallahu anha bi ñu ko laajee nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day koor ak budul koor koor ak budul koor noonu la ko doon def waxul koor rek waaye dana koor ak budul koor musta julli lu yées fukki rakka ak benn koor ak koor musu julli lu yées fukki rakk ak benn loolu mooy war na kon naafila yi ñuy sant ci weeru koor bi du koor gi rek lañ ñu koy sante waaye dafa war a des ñun ñu tàmm ko tàgg ko ndax diira fanweeri fan su fekkee yaa ngi koy naafil ni mu waree waxuma nag ñi nga xam dañuy naafil seen bu njëkk ba rek wala fukki fan yu njëkk yi rek wala bu koor gi jeexee commencé nañ waaye koo xam ni dem nga ba fanweeri fan yu jeex na dëgg-dëgg bu koor gi jeexee naafile war naa des ci te war nga koo tàmm ba nga xamee nii da nga koy day nekk saw sas waxam ne bu deen ñett rakk ñeent rakk wala juróom benn rakk wala ñaari rakk sax da koy saxoo mu yëg ne waxtu wu nekk day nekk warteef yow ndax nag lépp solo yi mooy lu mu néew néew mu sax njëriñ salaatam nee na li gën ci jëf yi maa ma ma maa ma mooy loo xam ne dafa sax walaw xal la jëf ji gën mooy at boobu haa walaw xal jëf ji gën ci xeet jaamu yàlla yi mooy jëf joo xam ne dafa sax donte lu néew la su ko defee loolu nag kenn ku nekk aw sas la woo xam ne aw waar la woo xam ne yaa koy daggal sa bopp waaye mu doon loo xam ne danga ko tàmm ci biir weeru koor yi waaye mbokk ji koor gi bare daf ñuy jàngal coono ak yi nga xam ne ab jullit war na koy yëg ci li nga xam ne war na ko jàngant ci liggéey lislaam liggéeyal diine lëg lépp lu mu war liggéeyal ko ci xam-xamam liggéeyal ko ci dooleem liggéeyal ko ci ñaqam ndax koor mii ñuy woor kat saxaaba yu koor gi njëkk a woor dañoo woor rek daal di xaswatu bara da seen ko dal seen ko te teewut dañuy koor boole ko xaswatu bara di xeex te teewul seen njàmbaar ak seen fit man na leen fukki nit yu nekk mën nañoo gañe téeméer nit téeméer nit yu nekk mën nañoo gañe junni nit kenn nit ku nekk mën naa xeex ñett nit lu tax koor lañ waaye koor gi daleen yokk ndëgër da leen yokk fit da leen yokk jom kon koor noonu la dafa war a yokk nit ki jom da ko war a yokk fit da ko war a yokk lépp lu mu doon def ci taxawaay diggante ak borom digganteem ak jaamu yàlla mu man koo taxawee waaye koor gi nit ki warut mën a woo layoo rek ne damaa woor ba ba muytuwul waxtu liggéey sax da koy wàññi su waroon a xëy huit heures neuf heures lii xëy su waroon a wàcc cinq heures boobu moytu quatre heures wala bu jëlee deux heures wàcc na dem aw yoonam bu baa kooku déggu dégg dégg koor ndax kat lépp lu ñu yàlla subhaanahu wa taala di misaal ci saxaaba ya waxtu wu nekk ñu ngi koy dund gis nañ su suñ tubaa radiallahu anhu ci xasdam gi muy tuddee asmaa wa ahlu badar ba mu koy lim da cee boole Ousmane te Ousmane nekkutoon ca xasatu badar waaye it xal ba ko Ousmane fii im kal xusaatu maan mu ko Ousmane la muy nekk nekk ci ndigal loo xam ne yun salaasam moo ko jox téewut xolam ak xelam yépp ma nga bokk ànd ak saxaaba yi mooy nit ki même bu fekkee fekk woo xasatu badar lépp li nga xam ne mi ngi sa kanam te diine di ko woote moo xam conférence ba la moo xam njàngum alxuraan ba la moo xam tabax jàkk ji la moo xam lépp loo xam ne dañ koy woote ci nga taw ca ndax xiif ndax ragal coono ndax ragal fitna mooy firndaal na même boo fekkoon xasatu badar dim doo doo doo doo bokk ñu ko doon def loolu yaakaar naa am na benn mbokk bay faal bu ci bu ci bu ci indi lu xoromu bay faal yi di ko wër rek di ko naan ko bu doon faal du ñu daw bu doon badar faal du ñu daw waaye mu jékki-jékki rek tiira fetal gaa yëpp tasaaroo mun leen bu doon badar demoon ni ngeen mer rek mooy ñu bëri ci jullitin fi mu dollu bu badar ñëwaatee boo mu ñee daw ci ñu bokk mooy jullit bi bu nekkee ci weeru koor war ak doxin ak taxawaay woo xam ne bu doon koo badar tim tey bu ko badar fekkoon bare taxawaay ak boobu la yam te mooy lim doon def ci yàlla lim doon lu ci liggéey lim doon def ci ay jëf lu ci wàññi dara waaye contrement daf ko war a yokk waaye gis nañ nag ñi yëngatu ci wàllu économie suñu réew yi sax jàngat tubaab yi gis ne koor saa bu ñëwee dañuy perte lu bëri bëri ci wàllu économie lu ko waral mooy nit ñi leen doon liggéey bu ñu doon liggéey juróom-ñetti waxtu léegi juróomi waxtu la ñuy liggéey te juróomi waxtu boobu ay tappal li nga xam ne mooy koor waaye mbokk yi koor dafa bokk ci lim ñuy jàngal su fekkee dégg nañ ko mooy wéet wéet mooy jaam bi warta topp rek yëngu-yëngutu àddina yi nekk ci marché yi nekk ci xumbeen yi nekk ci riirandoo mi ba nga xamee ni yow day mujj doo xam lan la da ngay xëy dem marché wàcc da xëy dem marché wàcc da xëy dem marché wàcc nekk ci màggal yi nekk ci furi nekk nangam mu doon mag yëngati yow yaay kan day mel ne am machine nga am machine nga bu ñu rulli rek waaye lu benn mag doon wax nit ku nekk war ngaa toog ba si yàgg nga ne ruq mën a kan am ruq boo xam da nga koy wén nag na waaw man man mën a kan ndax man li ma war sama diggante sama borom ndax man li ma war sama diggante sama waajur ndax man li ma war sama dëkkandoo ndax man li ndax ndax man samay jikko ndax man samay jëfin ndax nangam nangam mooy nit ku nekk mu kallax mu nekk war naa mën a am ruq mën a kam loolu moo tax mu bokk ci li nga xam ne ni dañ ko doon yonent salaatam da ko doon santaane bu baax ci weeru koor li ñu doon lextikaaf donte mën ngaa wax ne léegi sax daa mujj mel na foofu na raaf li ñu tuddee laxtikaaf te yónni sallallahu alayhi doon tëju lu mat fukki fan lu mu néew néew yoo xam ne fukki fan yi koor yu mujj yi du ko génn di laxtikaaf nekk ca jàkk ja ndax yónni sallallahu alayhi wasallam ne nag al masjidu baytu kulli nee na jàkka mooy néego bu aji ragal yàlla yi te koor ragal yàlla subhaanahu wa la jiwat kon ki woor war na am lu mu néew néew ay waxtu wala ay jamono yoo xam ne dana wéetal yàlla ci néegub yàlla subhaanahu wa taala yaakaar naa ne Cheikh Mamadou Mourtada radiyallahu anhu daana jox ay misaal yu xóot nga xam ne itteem lu mu bari bari bari fu fukki koor yi mujj ñëwee duutul génn ci dara def na ko leextikaaf leextikaaf tekkiwul ne da ngay def fukki fan yi même bu dee ne guddi ak bëccëg ndax leextikaaf mi ngi tàmbalee ci guddi ak bëccëg benn guddi ak bëccëg boo wéet ci biir koor gi mooy def nga xalwata def nga wéet def nga leextikaaf te loolu mën nga cee nafaraat lu bari sa diggante sa borom mën cee nafaraat lu bëri sa sa bopp mën nga cee nafaraat lu bëri sa diggante sa jaamu jaamu yàlla yi moo tax koor dafa ñëw di ñu jàmmal na jaam bi léeg-léeg war na wéet ak boppam ba xoolaat boppam ak ay taxawaayam ak jëfinam ak melakaanam te noonu ko saxaaba yi doon defee noonu it moo tax léeg-léeg ku ko yàlla subhaanahu wa taala man loo sax dañuy bëgg boo mënee umra ji nga umra ci biir weeru koor umra di gën mooy umra bu di ci weeru koor ndax dana fekk nga demaat génn ci réew dem ci barab bu wéet boo xam ne danga nga sori lépp loo xam ne mooy xumb-xumb yi lépp loo xam ne mooy yëngu-yëngu yi wéetal sa borom subhaanahu wa taala kese loolu rek mooy tax ñi bëgg même ku ko man bay umra tax ngay umra koor waaye kon li ma bëgg ñu mooy koor daf ñuy jàngal wéet mooy jaam bi war naa am ay waxtu ay minutes yoo xam ne da koy wéet ak boppam wéet ak borom subhaanahu wa taala te loolu mu bañ a nekk ci koor gi rek waaye koor gi jàngal ko ba bu koor gi jeexee mu am jamono ji nekk yoo xam ne nii yu mu wéet ak boppam la di ci jaamu yàlla subhaanahu wa waaye koor mbokk yi dafa ñëwoon ngir jàngal ñu ñu xër ci sàkk lu baax ab jullit day xër ci sàkk lu baax lu baax lu mu lu mu ci am lu mu rëy rëy rëy rëy du tax mu doyal ca waaye lu bon nag mu bañ cee xeeb dara lu mu tut tuti mu di ko sori waxtu wu nekk di ko daw loolu suñu boroom subhaanahu wa taala daf ñu ko jàngal ci laylatul xadar laylatul xadar ak guddi la goo xam ne yàlla daf koo dëxañ ci biir weeru koor mu nekk benn guddi goo xam ne yàlla nee na jaamu yàlla moo gën jaamu yàlla junni weer te junni weer borom xam-xam yi di ko natt ne mooy juróom ñetti fukki at yu tegal ku ko jaamu yàlla jaamu yàlla gu nangu suñu borom ne loolu lépp nag defal naa leen ci génn guddi mooy ci guddeeg laylatul xadar wante nag mu dëxuñ ko biir weeru koor wante mu dem ba yonent salaatam ne neen ko làmbatu ci fukki fan yu mujj yi ñi di ko war mu war kon nga jàpp ne koon soo wooree ba gi jeex jàppal na guddi gu nekk rek guddi lay tuxadar la loolu mooy li gën a gaaw ci wër lay tuxadar yow daal buñ ne tey la um ba baa koor gi jeex ñu ne war nañ jàppal na guddi gu ñëw gu nekk jàppal na guddi lay tuxadar te jar na ko jar na ko ndax yàlla mu boppam moo wax ne inna anzalnaahu fii laylatul qadr wa ma adraka ma laylatul laylatul qadr xayrun min alfi shahr lu yàlla na xayrun moo gën moo gën a yàlla ab jaam mënu ko nat moo gën a nit mën ngaa wax ne man nga ko xayma man nga ko misaal waaye yàlla lu mu ne loo gën kenn xamul na mu toll ci ngënaay lu yàlla xam na moo gën a kon boo koy làmmadoo da lay jaral nga bàyyi sa lépp ba mën ko napp te loolu nag mooy jàpp ne guddi gu nekk rek ci yow guddi gi Laylatul Qadr la waaye mbokk yi li ma bëgg a jàngale foofu mooy li ma bëgg a foofu mooy lu tax suñu borom subhaanahu wa taala xéewal gu rëy googu mu jagleel ko xeetu sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dem ba baax ñu mu indi ko ci guddi gu weeru koor weeru ci weeru weeru koor sunu borom subhanahu wa taala mënoon nañu mi ngi ci guddi sàngam saa bu mu wooratee bu guddi sàngam guddi googu mooy laytu xadar waaye lu tax mu réere ko ci beru koor hatta yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nga xam ne wóor nañu yàlla subhanahu wa xamal na ko lépp saxaaba yi di ko ci topp di ko ci topp di ko ci topp ba mujj mën a leen mi ngi ci fukki fan yi mujj yi dee leen ko ci làmbatu te noonu mu xamee ne mi ngi ci fukki fan yi mujj yi dee waaye ko na na mi ngi ci wante lan moo jibli kon ci réeral ko mooy ñi làmmatu mbaax ci fépp ci barab bu nekk ci waxtu wu nekk ci jamono ji nekk lu nekk ñu jàpp na mën nañ ci am lu baax jëmmi nit koo dajee ku nekk jàpp ne mën nga ci am lu baax jëmmi barab boo nekk bu nekk jàpp ne nga ci am lu baax jëmmi liggéey booy liggéey bu nekk jàpp ne mën nga ci am a ngërëmal yàlla subhanahu wa taala dama koy misaal toujours ne gouverneur ak kiy bale gouverneur kiy bale góor gouverneur mën naa gën a foor gouverneur ci boppam mi nga ajjële ci pas-pas bi ak sellal kon loolu jàmm bi pas boobu ak sellal boobu la am te loolu yàlla subhanahu misaal nañu ko ci bari lu mel ni bisu ma nga xam ne borom xam-xam yépp nee nañ am na waxtu woo xam ne ku ja ñaan yàlla subhanahu ñaan googu ci direct la ko yàlla du nangu waaw yàlla yeneen salaat mi dem ba wax ñu bisu àjjuma mën na ñoo wax ne waxtu sàngam ci àjjuma wayante mu réeral ko ne bisu ma bëgg rek bis bi àjjuma ji yépp guddi ma yépp ak bisu àjjuma yépp bis bu nekk nga jàpp ne waxtoo waxtu nangul ñaan la ngay tàllal sa loxo yàlla subhanahu wa noonu la ko defee dem ba li ñu dee salaatu wusta nga xam ne julli goo xam ne neen juróomi julli yëpp mooy julli ku jëgën mu réeral ko ne làmm leen ko julli ñi naan mooy timis ñi naan mooy tàkkusaan ñi naan mooy suba ñi naan mooy tisbaar kon jàppal na julli koo julli rek julli googu mooy salaatu wusta yow waaye li ñu tuddee waliyu wala boog nitu yàlla nga xam ne amul kenn nitu yàlla koo mos a romb yàlla bind ci ab jëm ne kii waliyu la dañ koy foog yaakaar ko jot rek te léeg-léeg doomu aadama fi mu koy foogee ak fi mu koy yaakaar ak fi mu koy mën naa am du foofu fa muy yaakaar na du fa mën na am foofa la léeg-léeg benn góor yàlla da doon wër ku ko eggale ci yàlla subhaanahu wa ñu ne ko doxal boo doxee ci yoon bi bala nga àgg dëkk sàngam da nga daje ki yor secret tur yàlla wi ngay wët mu dem ba ba waaj dëkk ba daje génn góor gu màggat sol caay ju xar yanu say mat mu ne ki may wër du kii kii secret bu toll ni bi may wër warta nekk jëmm ju mel nii ba mu àggee ñu ne ko romb nga góor gu màggat googu yanu say mat yor caay ju xar jooju yàlla wi ngay wër mooy kon foo koy foogee mën naa am du fa moom mi ngi yaakaar na borom bu mu rëy la dajet mi ngi yaakaar na borom mbooloo mu rëy la dajet mi ngi yaakaar na kilifa gu rëy la dajet te fekk na ci jëmm ju tuuti la yàlla subhanahu wa taala def secret boobu mooy kon jàppal na jëmm ju nekk barab bu nekk waxtu wu nekk place bu nekk mën nga faa amee ngërëmal yàlla subhanahu wa taala te boo fa wooyee yàlla mën na laa wuy te boo fa ñaanee yàlla subhanahu mën na la nangul bi ci toppit mooy koor dafa ñëw di ñu jàngal suñu aada yi ñuy def a nit di ko aadawoo ñu jàpp bañ a jàpp na aada la joo xam ne routine la war a doon dama koy def rek suba ma defaat ko gannaaw suba ma defaat gannaaw suba ma defaat ko mook doomu aadama ñu ànd déedéet wa yàlla daf ñuy jàngal ne ja lépp lu doomu aadama di yëngatu jaamu yàlla subhanahu wa taala la yooyu yu bëri la waaye mën naa ci misaal rek lu mel ni lekk lu mel ni naan lu mel ni sëy nga xam ne moo ci gën a siiw nga xam ne nit ki day yëg na mënut a ñàkk a lekk nit ki day yëg ne mënut a ñàkk a nelaw nit ki day yëg ne mënut a ñàkk soxna wala mënut a ñàkk borom kër lu ci nekk ci yooyu sunu borom subhaanahu wa taala dalay jàngal ci weeru koor na la war nga ci limiter sa bopp war nga cee yemale sa bopp te bañ cee ëppal te loo ciy def na nekk jaamu yàlla subhaanahu wa taala moom la sëriñ Tuubaa radiyallahu anhu di wax ne laa tuksiru suhura wal futura euh, mumtali al badn fa tahrumul ujur wa kullu man amlaha badnu taam wa aksara sawaaba alayhi wal manaam fa innahu ma al bahimati stawa isfaatuhu xayrun kasiran fa tawa sëriñ tubaa nee na rik waa yow mi woor na ngay fexe ba booy xaddu bul xaddu ba sa biir fees dell waaye na ngay fexe ba booy ndogu bul ndogu ba sa biir fees dell ñu bari ci suñu mbokk sëyeen yi ak suñu mbokk jaay yi nag bu ñu demee bay dog ñoom lañ waroon a ndékkee war koo añee war koo reere lépp dañ koy teg ci benn place bëgg jël ndékki li bëgg teg reer bi bëgg teg te mooy café gaa ngi fi soow maa ngi fi mburu maa ngi fi banaana baa ngi fi beurre baa ngi fi lépp nga bëgg koo jaxas benn paas mooy soo paree boo suuro yi wér di ko topp ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa am benn buur bu ko mos yónnee ay taraanga yu bare bare bare boole ci ay jaam boole ci ay docteur boole ci lépp di sallallahu alayhi wa sallam téye mbooleem taraanga ya ko buur bi jox waaye mu delloo ko docteur bi buur bi laaj ko ne ko lu tax mu ne ko ñun ay nit lañ yoo xam ne duñu ñu feebar dëggal yonent salaatu salaam mu ne ko ñun ay nit lañ yoo xam ne du ñu feebar lu tax du ñu feebar ndax laa naakula ataana joo mooy duñ lekk lu dul duñoo xiif waaye saa sabi'naa taraknaa te bu ñu suuree dañu bàyyi mu loolu mooy wane ne kon lekk yi doo ko tegale te doo ci jël lu ëpp te boo suuree da ngaa bëri ndax lu bari ci feebar yi doomu aadama feebar damay wax li ci bëri ñoom ñoo koy teg seen bopp ndax feebar yu bëri yu dul nattu yàlla subhaanahu wa taala feebar la boo xam ne li koy waral mooy loo lekk yow wala loo naan yow wala loo ngelaw loo noyyi yow wala sa yaram loo ko teg loolu la mooy waral feebar bu dul nattu borom bi subhaanahu wa taala loolu nag li ko waral li ci ëpp mooy lekk te yaakaar naa ne jamono ñëw na tey ba gis na suñu lekk yu bëri ñu lekk tey feebar yu bëri ñuy feebar moo ko ñëw moo ñu ko moo tax yéen saa doon ñu jàngal kon ci koor mooy ñi mën a diminuer suñu bopp ci lekk nga xam dañoo lew lekk nga xam ne ñoo ko moomal suñu bopp ñi man cee dimbal suñu bopp yemale ndax suñ tubaakat nee na képp koo xam da ngay feetal sa biir aw ñam ba mu fees dell ak naan sëriñ tubaa nee na yaag bàyyi may yéen a yem ba pare yiw wu bari faat na la ndax ñu bëggoon ceew ngay naafila guddi gi ak jàng alquran ak dundal guddi gi du doo ko mënati ndax biir moom saa bu feesee rek nelaw lay bëgg ndax moo tax mu ne mahal bahimati sawa da ngay mujjee ak bàyyi may te naa doomu aadama yi war na ëpp boppam ci lekk ak naan noonu mu bàyyee xel lekk noonu la war a bayee xel naanit noonu la war a bayee xel ndax am na ñoo xam ne waxuma laa lekk avant ñu ak lekk rek waaye buñ dogee dañuy naana naana naan ba nga xam ne du sax foo xam ne lekk te sa biir dañ ko xaaj ñetti xaaj daa xaaj boo xam ne pour lekk la am xaaj boo xam ne pour ndox la am xaaj boo xam ne pour noyyi la boo bëri jëlee xaaj bi yëpp nag def ci lekk ak naan ba mooy fu noyyi di jaar du fa am bu muy demoo di gémmi ngay mujj noyyi mooy tëdd da ngay mën a ti doo mën a jaamu yàlla subhanahu wa loolu moo tax jaam bi war koo bàyyi xel ni ko noonu sëy nga xam ne ba benn xam-xam bu mag danoo wax ne fii ak yéen a ngi sëy comme ni nga xam noonu la ko mala yi defe mooy da ngeen di mujj faatu comme ni weñ yi di faatoo yooyu koor da koy jàngal ba alxuraan ci njëlbéenu koor sax amutoon sëy ba weeru koor wi jeex waaye suma borom subhaana day yëg ne am na ci jullit ñoo xam ni kat dañuy sàcc di jëfanaan ak seen soxna yu guddi yaa sunu borom subhaana taala wàccee kon alxuraan ne kon nag na ngeen koy def ba fekk yéen fekk bàyyi loolu mooy wane ne kon atta ci koor day ñëw di la jàngal ne war ngaa limiter sa bopp ci lekk war nga koo limiter ci naan war nga koo limiter ci lekk mboolem xeetu aada yi nga xam doomu aada na ko aada bu ci nekk mu yëg du koy def rek mel ni ni ko bàyyi mi di defee waaye da koo war a def mu nekk ak jaamu yàlla ci yow te lépp ciy def kon na ko sëñ Tuubaa doon doon waxee euh, maa ma maa yuqiimu sulba luy taxawal ndiggu nit ki ba mën a jaamu yàlla subhaanahu wa taala loolu la war a soxla ci mboolem xeetu ñam yi xam ne moo nekk ci kanam loolu moo tax ci loolu la gis ne koor day ñëw kon ittiwoo gi ngay ittiwoo sa yaram sa yàpp yaram ci jox ko mu lekk ci solal ko ay yére yu rafet ci faj ko saa bu feebaree lu toll loolu nga war a ittiwoo ci dundal sa ruux ndax ruux gi day day day xiibal moom itam day xiif moom itam day mar moom itam te ruux gi nag moom mburu mënu koo dundal ceeb mënu koo dundal kafe mënu koo dundal waaye ruux gi li koy dundal mooy jaamu yàlla subhaanahu wa taala mooy turu borom bi subhaanahu wa taala mooy dellu ci yàlla subhaanahu wa taala loolu rek mooy dundal ruux moo tax yonent sallallahu alayhi wasallam doon wax ne suumu tasiwu na ngeen woor kon da ngeen wér ndax koor gi ni muy dundale yaram bi noonu lay dundalee li nga xam ne mooy roo gi waaye noonu lay dindal lépp li nga xam ne mooy ceet ci xeetu caay-caay xeetu mbon goo xam ne nekkoon na ci biir yaram bi da koy raxas ba mu set wecc moo tax yéen sallallahu alayhi wasallam comprimé bu mu joxoon bépp mukallaf boo xam ne egg nga ci sëy te amoo loo takke soxna benn comprimé dong la la joxoon te mooy na nga woor yaa ma'sara saba sa istata minkum baata falyatazawwaj fa in lam yastati fa yi bi sawm fa innahu aqadu lil basar képp koo xamee ni àgg nga ci war a takk soxna na nga ko def boo ko mënul nag sa gàllaaj leen rek mooy woor loolu mooy war ne koor dafay dimbale nit ki mu mën a yar boppam mu mën a defar ruuxam mu mën a doon koo xamee ni lépp loo xam ne ni mooy bànneex bi nekk ci xel wala ci xol dana ko mën a raxasal ba mu mën a dox diggante borom subhanahu wa taala